dama la jox misal ci kenn Cheikh Al Hadj Omar radiyallahu taala anhu mais ki bima amé ñaar fukat ak juróom la commencé di gis yonent bi yàq zetan laa raw ñep Cheikh Omar raw ñep ñep la wax ci jamonom ci xam-xam ci wilaya ci ci njambar ci lépp c'est de Hadji Malick daan wax ni Cheikh Omar limay yem ci mom xam-xam bi limi bare bare ak wilaya gi yéemu ma Cheikh Omar moo yemuma yitte ji mu am ñu ni ko Maodo mu ni muy sëriñ boo xam ni day toog ci kaw fas wi yore jaasi yore xeejam jàkkaarloog noon yi di xeex ak ñoom taalibe yi muy jàngal ubbi téere yi mu leen di jàngal taalif yi muy taalif benn du manqué ma ngay taalif kurus gaa ngay dox te benn du tardé alaaji maa ngi ni kii lii ko nawe من اللي لا نبي شغل الحاج عمر شغل الحاج عمر مو من كاتك جروم لا ام ديك سين انت بي لا مناما لين دون وخني يون انت بي يقزتن بو غيسي سيدي حاج مساله الشريعه ولا مساله الطريقه سن ورنتي من مودول لا الحاج عمر وخ لاي توب لول دو بور بيند كسي دا خم الحاج عمر فك يالا دي جارالي شيخ الحاج عمر بو ورنتي مساله يي دي دوجو سي نيك بي sayyidul wujudi fekk ko ci néeg bi sayyiduna Muhammad jox ko àtte bi soo déggee ma lay wax yenn saa yi ay ñoom Cheikh Al Hadj Omar ñi dañu dañu dañu am teggin dañu am teggin moo tax ñu naan ay njiiru imam Malik lañu lañu la ñu tënku mais rawuñu leen du neex a dégg nag rawuñ wallahi rawuñu leen rawuñu leen mais dañu am teggin parce que boo fi fekkee lu nu sos mu sofoo ci yonent bi te wér jaratul nga fi sosaat dara di ko sof ci yonent bi sofu ca dem loolu alaaji Malick wax ni mënoon naa créer suma tariq waaye su ma ko defee duma am tariqa bu mel na tariqa tiijaan moo tax ma ñëw bokk ci Cheikh Omar ñaar fukki at ak juróom muy gis yonent bi lu ne lu mu wax yonent bi yonent bi topp ko Cheikh wax na moom Cheikh El Hadj ni man yaakaaroon naa yonent bi ni ma bëgge ci jamono yooyu bëggewu ko nit nee na ba benn bis ma ne ko ah man da amna luma lu ma bëggoon mu ni ko lan mu ni ko tariqa tudde ko tariikhatul umariya neena yonent bi ni ko ah soko defé di nga am mbolo soko defé nit ñi dañ la wuy mais du am garanti tariikha bi ma doon garanti ci mujju jamono garantie nako bu nopi muy tariikha sayyidi Cheikh Ahmed Tijani Chérif radiallahu taala anhu demal nga bokku ci nek ci talibé koko ben riwaya la benen riwaya bi dan ni bi mu waxee loolu maamam yonent bi bi mu waxee loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi dafa ne ko tarixa yi garantie ngi nii tànn ci benn nga bokk ci loolu ko yonent bi wax tànn ci benn nga bokk ci parce que yii laa garantie ba noppi nee na mun bi tànnal ma yonent bi ni ko ixtartu ixtartu lakka tariqata sayidi cheikh ahmed tijaani chérif tànnal naa la tariqa cheikh demal ci tariqa boobu nga bok ci nek ci taalibe kon du tariqa caaxaan ah Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu moy serigne bo xamni dafa ñëw mom kessé mom mom moy benn serigne bo xamni day jëf wax nga roy ko taalibe yi ko roy yëpp ak njaboot yëpp jariñu ñëpp jariñu loolu nag mooy tarixa bi su ko defee Moussa ah ngi bëgg a gudd te man dama ne woon damay ñëw rek moom ba may yéeg dama ne ko damay ñëw rek nuyoo ñu gis ma ma bokk ci tey ñi ñëw ci bis bi am ci tiyaaba jéeg yëpp ñaan yàlla yàlla nañu ko téewee déwén collectif bi dafay dox ci kaw ndigal Serigne Abdoul Aziz Al Amin moo joxe woon ndigal li bu jotatee nañ ci taxaw yéen nag ndigal loolu yéen a ngi koy wéyee yal na yàlla taxawu leen